Yes. seen affiche Aziz Aziz bi taxaw na taxaw ah kon taxaw na yàgg na jot nañu avance ñoom ñaar ñëpp Balla Gaye bomba booy ñaar ah. la ilaha illallah kan ah donc signé na ba pare donc poignée de main Lamine poignée de main échange de mais buzz bi bi bi perpévu la wala du Faso te daa neex a jàpp ci gàllaaj nag daa neex a jàpp ci gàllaaj. Boy Niang Boy neex a jàpp Boy Niang Boy Niang sa sarax lañ xam ndox mu sedd. voilà. dox nañ sa maayin ba pare ndax yaa ngi lox. yow yaa ngi lox yow mosoo mel nii sa bët yi mosul xokkee. yow dox nañ sa maayin ba pare ndax yaa ngi lox yow yaa ngi lox yow mosoo mel nii sa bët yi mosul xokkee nii. changé nga. barke Serigne Bamba changé nga. sa bët dafa xonk nii sa bët yi na.